maa ngi ñaan itam suñu mbokki auditeurs yi ñu déglu nga xam ni bu ñu toll rek ñu euh, jërëjëfu di ñu xamal seeni xalaat te fu ñu toll rek boo ci mënti tasel mu di la teral loolu nag lu important la parce que dañuy wax ni nit ku nekk sa bopp la bàyyi ji sa morom bu fekkee ni eh, yow tekki woo dara loolu dama koy faral di wax ba ku ma dégg sax may wax dangay defe ni foog ma daane la foofu nit ki bu fekkee ni yow da nekk nit simple rek waaye ki ngay seeti tegu la fenn boo ñëwee du la teg fenn lu mu foor foor bu ëllëgee nga wuti feneen ndax ba feneen amee ba tey kenn sonnatul eh, émission Père Chimère boobu nag donc jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñuy cousine ak suñuy cousin ak suñuy euh, auditeur ak suñuy xame ak suñuy xarit yëpp ñu leen di sant ñu ngi sant euh, borom rajo bi di sant ki kii nga xam mooy technicien bi am ak ñun tey ci émission bi ñuy def euh, bu loolu wéree nag ñun itam am nañu surprise tuuti ndax euh, dañ doon def anniversaire rek comme anniversaire yi fi xewoon yëpp ku ci nekk euh, jéem nañ caa wax dara ñu fekk nañ Pierre Chimère moom bi nga xamee ni xam nañ ni 19 mars ci la génn àddina ñu ne woon nag euh, émission bu ñu njëkk a def rek nañ ko tuddaale ndax wax dëgg kilifa bu mag la woon ci Ndar te rajo bi wala Sénégal gépp ñëpp ko bokk te Sénégal bu nekk nga fi am na ay buur am na ay nit ñoo xam ne ni ñooñu lañu am na ñoo xam ne ni dañu màcc jëm ci tubaab ak façon bu nekk dafa am bu ko defee nag ñuy tax amuñu droit rek di cantonné ci buur yi mu seet naa ko fay wax war nañoo seet itam képp koo xam ne kii sa taxawaay lu exemplaire la ci wàll bu nekk nag fekkee ni borom xalaat nga woon te fi ñoom ko ci bermaa consort bu fekkee ni borom jàng la te jëriñ la mu temps soit bu fekkee ni ñi nga xam ne ñoo ñoo accompagner ba mu commencé ba tey te pour réew mi yëngatu ñu ko mel ni yooyu ñoo tudd ci militaire yeeg ñooñu ak ñi xam ni mel na ni ki ñooy euh, saxal lislaam bi fii ñii Cheikh Omar Foutiyou ki ñoom Mabaak Sëñ Touba ñi ñëpp euh, war nañu di fàttali seeni jëf di def ay émission ci ñoom loolu moo ñu conduiroon ba ñu waxtaane Pierre Chimère mais am nañ ci mbetteel parce que nit ñi seen réaction neex na trop ndax dañu ne ñun dey wax dëgg ñun Pierre dañ ko daan dégg rek waaye xamuñ mooy kan ndekete jaar na fii yëpp e, te yéen itam noonu ngeen def na ngeen ci na ngeen ci góorgóorlu Sénégal ñëpp a fi dëkkoon ku ci nekk loo baaxle war ngeen ko fara fexe ba feeñal ko e, kon nag ñun xamuñu woon Pierre jàngal leen ñu continuer nañ ci loolu e, waaye nag ay njërëtam ak yi ay bokkam ñoom suñu sago ngeen ñam ci tuuti ba loolu moo ñu fi indi bésu tey bi jërëjëf alaaji Mamour xanaa jano ñu déglu tuuti alaaji Samba Jabare te moom it nag ci tabaski bi mu génn ñu di ko ñaanal yàlla yana ko fi yàlla bay ndax alaaji moom Amadou Hampâté Bâ moo waxoon lenn mu ne tout vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle mu ne mag mu fi jóge rek euh, xam-xam bu sànku la tala gi sama jabaray nekk way jur ci ñun di xarit ci yow Mamour di soppi waaye ku xam ne doon kenn ci El Hadj euh, El Hadj Mansour ibnu Cheikh Hadj Malick nekk mag mu xam ne du woye bakkan bàyyi dafay woye a cosaan fàttali xale yi cosaan mag ñu mel nii dafay dundal réew kon ñu ñaan yàlla mag mu mel ni moom ak mag ñu mel ni ñoom ak xale yi xam ne ñu ngi teg seen tànk ci fi mu ko teg yal yàlla sàmmal leen boppam ci barke yonent bi alayhi salaam yow jeune dañu wax baat bi njëriñu Pierre Chimère waaw jërëjëf waxoon naa waxoon naa ci temps yi passé keroog ci suñu dernière émission ba dama ne du Pierre Chimère rek la Chimère jur fàttali woon naa leen ni Pierre Chimère moom Chimère mi ko jur Sénégal jaww ko jur ñu di ko wax Yérim Mbagnick moom la Fara Diaw Awa jur Fara Diaw Awa ci ci euh, taw Madiakhor yi la bokk ba nga xamee ne nag euh, Pierre Sinar moom wax naa kon moo Mary Teuw ñoo bokk bàyyi Mary Teuw a ko mag waaye teg na ku ñuy wax Kati Jaw teg na ku ñuy wax Aanu teg na ku ñuy wax Ginni teg na ku ñuy wax Sylvie ak Jeannette ak Mathurin ak René ñooñu nag boo déggee seen tur rek xam ni daanaka côté catholique la sauf ñu woon ci kaw Mary-Teuw nag ci boppam donc comme wax naa ni euh, moo mag euh, daanaka presque émission tey bi ci njëratam la ñu kii Pierre Chimère nag euh, dafa jëkk jël ku ñu wax Marie sànni Ndiaye mu Samba Ñele ca gore moom euh, Marie Saana Ndiaye moom lañu def Marie Jeanne léegi tur bi sax na ci biir kër gi kooku moo jur Jeannette Marie Chimère dafa teel a dee mu ngi dee le 26 octobre 1876 mu teg ci ku ñuy wax Mathurin Mathurin moom le 26 avril 1872 la juddu